kon nag pare leen ministre de l' intérieur na pare élection présidentielle su bàyyee ngeen jàll alors ah moo éliminé Malick pour la même cause waa waa yeewi askan wi ñu ngi peut-être dem bëgg organiser euh, benn rassemblement yéen yàgg nañ leen gis ah, ci ci ay ay rassemblement bëgg organiser benn rassemblement mercredi euh, par rapport justement à ce qui se passe ci ci élection yi déjà naka nga gisee rassemblement boobu non ñun ñun arrêté ñu dem ay rassemblement depuis bi ñu aar li ñu bokk ba ñu demee ba yëg ni ni politique la ñoo lànk politique la ba ñu yëgee ni ni société civile ba ma daan wax muy ñoom Guy Marius Sagna ñëpp dañoo am parti politique bi ma ko daan dénoncé ñun bi ñu ko yëgee nga xam da ngay toog ci biir coalition yi ak ci biir front yi ay décision politique di jog sëgam ñu dul respecté ay charte ci biir ay front wala ñu dul respecté parce que je rappelle peut-être que moom mën na ma bañ a xam wala ñeneen ñi may seetaan que ñoom ñëpp leader yi ne ci kanam bokk naa ak ñoom coalition de Manko de gor sa wax ja ba fii ba pause bu maître maam Adama Gueye man ak Abdourahmane Sow rek ñoo doon toog donc moo tax su ma déggee leader yi di wax ak seeni observateur ak seeni chroniqueur ay ree daf may jàpp parce que man dama doon nekk ci taabal bi toog di fekkee li ñuy wax ci biir bokkul ak li ñuy communiquer ci biti ah moom laa lay wax ne la biñ fi jógee ci M23 dafa am ñu ñëw M23 rax ci biir indi seeni moyens indi seeni doole loolu moo jëlee Ablaye Wade tout sauf Ablaye Wade boobu objectif bi dafa amoon ñu amoon problème économique am société civile bu ñu bloqué woon sur le plan international am ñu am problème ces mêmes personne ñoo fekk charte assise yi xotti ko mooy li ñu doon wax sànq tout à l'heure mhm. ne la ñoom ñi toog ñëpp fekkee woon nañu loolu fekkee woon nañ scénario fekkee woon nañu lépp parce que bi ñu doon dem tout sauf Abdoulaye Wade la bi tout sauf Abdoulaye Wade jeexee ñun COS m li ñuy jur moo doon dañu ne nañu dem des orientations et des stratégies pour évaluer fi ñu jóge ba yegg si fii mhm. forme bi ñu manipuler woon en en M23 la ñu bëggoon xoolaat bi ñu ñëwee góor sa wax ja ces même leaders wóolante wuñu ci seen biir ces même leaders au niveau de Manko wattu Séné wax Manko taxaw wattu Sénégal bi ñu ko créé charte Abdourahmane Sow moo jël initiative bi personne n'a respecté cette charte ñu jóge foofu dem pose maître Mame Adama Gueye leaders yi lay wax ni ñoom ñëpp amuñu état major politique moo tax li ñu lay wax nii ci seen i parrainage c'est di ay saupoudrage la leader yi kenn yoratu ci parti clan la yor ak groupe ak seen i looloo fi am kenn amatu fi instance gis nga lii indi coow li ñu ngi wax tey ci instance Malick Gakou Malick Gakou tey Malick Gakou neex na tudd mais quand Manko taxaw Sénégal la même problème amoon ñu ne Malick Gakou moo yàq liste yi moo dil liste moo def lii boobu Malick Gakou neexul a tudd boobu Malick Gakou génn na ñu ne ko leader de l'opposition la mais c'est même homme politique tey su dee dañoo ànd xuloo parce ànd ak ñoom leader bu ma ci woone kaay signé nga ne je fais l'affaire à Khalifa Sall ñoom ñii toog nii tey bokk coalition bi. ah bon ñenn ñi refusé signé ne ma du ma signé. Mm. jusqu'à ce que ma def menace. daal ne képp kuy dem. képp kuy dem si ko kaso Khalifa di seeg Khalifa Sall te génnee di def ay déclaration su ma te dinaa tudd sa tur si la ñu bari accepté ñëw signé. te ñooñu yaa ngi leen di gis. ci coalition ñu ngi ànd ñoo toog ñoo bokk benn coalition Yewwi ba pare c'est même personne bi ñuy nekk Manko taxaw Sénégal moo tax bu ñuy wax dama leen di wax ne leen askan wi man laay waxal. le problème du Sénégal waxaloo askan non xam nga bopp laay waxal d'accord naa. d'accord naa parce que man utuma voix. parce que gis nañu fi ñu ñëw woote société civile ba mu jeex ñu dem ca liste ya dirigé ji Ziguinchor gis nañu ñu woote société syndicat ba mu yàgg ñu dem ne dañuy fi ñu nekk si loolu yëpp dama a refusé man ak Abdourahmane Sow laaj voix te man duma laaj voix société civile daara laa nekk na ngeen ko xam man du ma laaj voix ci daara ji laa nekk unité de l'islam laay mais mooy su ma laajoon voix am ko parce que bu may dem yow. ah mais vous créez yow. mais yow li nga yow déedéet non sëñ Saliou. Serigne Saliou man de man de mënuma wax Serigne Saliou nga man ngay confondre ak réseau xam parce que Serigne ni nga mel ni yàggul eh. sa mère bi mu ñëwee yàqu sa retraite bi mu yàqoo nga jaaxle xamoo foo jëm maaseeg ñoom Macky Sall ak maaseeg grand yi ci école nga topp donc nga baal mais kii dama ne yow régleel client politique régleel ah. yow bokkuñu ñu ñu xam nga lu tax dama ne les hommes politiques laa la bëgg a wax mm-hmm. nee na Aïssa mm-hmm. dañ dul nangooti ñun fii personnellement. yow ñan ñu dul nangu. déggoo wax ñun ñun Sénégal. yow yaa ngi parce que yéen hommes politiques yi yéen la ak seen i militants yi ngeen recruté. <laughs> yéen la ak seen i xoolal yéen la ak seen i ah. non soxlawuma di woo ay nit. xam nga lu tax di woo ay nit. non non xam nga xam nga Amadou Ba yow yow say article yow say article kenn du ko liir yow sa mafia nga am yow existé woo créature médiatique nga yow da doon taxawaalu nee nga ma juriste nga te yow dama la wax ne bi may ànd ak ñoom Déthié ak ñoom Ousmane Sonko di toog ci table bi mm. boobu xamagoo Ousmane ah, parce sa leader daf ñu waxoon politique day tardé laate sa leader bi muy mer di ngemb boobu ñun ñu ngi ci depuis 2011 dama dama la bëgg xamal ni seen leader bu dee patriotisme ëpp ñu ko parce que ñoo doon bokk ak deuxièmement mooy seen leader sax maa ko mag ci terrain politique loolu am loolu laa la bëgg xamal dama la bëgg xamal ne yow li jógee fële da ngaa jàng bitim réew ñëw fekk maire secrétaire municipal ñu nommé ñu jël la ko fal la ko doon xëccoo ay poste xaw directeur cabinet sëriñ yow gis nga seen clip bii type de politiciens yi ñoo yàq Sénégal te le président de la République moo ko commencé incarner dès le début ay uni ay étudiants yuy jàng muy ay Thérèse ak ay ñoom ñu paree ñu dañoo am dañoo am direct dañoo am euh, euh, direct priorité au direct euh, avant de revenir sur le plateau on a en direct Alsane Baldé le grand reporter Alsane allo allo Néné. waaw léeg-léeg comme ñi nga xamante ni mooy téléspectateurs yi di wax nag ne ñu ngi fii jamono ji nag en plein centre ville rawatina ci siège gi nga xamante ni mooy conseil constitutionnel Euh, ku ne nag xam na waxtu bi ñëpp a ngi fi ñi nga xamante ni mooy juróom-ñaari sages yi ñi ngi fi nga xamante ni mooy seen makkaan ñu ànd ci nag ñi nga xamante ni moy mandataire yenn ci ay parti ak coalition de parti yi nga mmh. xamante ni dañoo mmh. déposé woon ay recours euh, jamono ji ñi àddu nag ñoom ñu ngi ci biir lu ci ëpp nag ci ñi nga xamante ni mooy euh, mandataires yi ñu ngi ci biir on nous signale la présence quasiment de tous les mandataires yi nga xamante ni jotoon nañu dugal recours ku ci mel ni ki nga xamante ni mooy Déthié Fall nekkal fi Yewwi Askan Wi moom mi ngi ci biir coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu ki nga ni tamit mooy coalition Benno Bokk Yaakaar di moom it mi fii nemmeeku nañ fi tamit Abdou Diop ki nga xamante ni moo nekk ko euh, moo fi teewal coalition euh, ki nga xamante ni mooy gëm sa bopp kon ñu wax ne rek nee ne daanaka ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi xaarandi nag li nga xamante ni mooy lan moo war a ruusee ci li nga xamante ni mooy ndaje bi seen diggante ak ñi di juróom-ñaari sages yi ndax umpale wu leen ni comme ni mu ko waxee rek ñoom dañoo daal di déposer ay recours ci ay njuumte wala ay jafe-jafe yi nga xamante nemmeeku nañ ko ku ci nekk ci sa liste morom ak ñeneen nga xamante ne nemmeeku nañ ay rëq-rëq nii ci élection ni mu war a tëddee waral nag ñu daal di dugal ay recours li ci solo rek mooy nee ne euh, gis ngeen ko ni alkaati ñu ngi fi euh, le quartier est assez très calme d'ailleurs très calme à part euh, journalistes yi nga xamante ne ñoo fi nekk daanaka le journalistes sont la ils sont aux aguets comme d'habitude en circonstances yu mel nii dañuy faral di teew ngir rek mën a xool li nga xamante ni moo fi na ruuse comme xibaar mais li am solo rek mooy ñu jàpp ni les gens la et certainement ça voilà dina xaw guddee parce que am na ñoo xamante sax eh, dem nañu génn ñëwaat jëli seen yenn ay bagages parce que dañ leen koy laaj dem nañu ñëwaat quelques mandataires mais c'est dire que aujourd'hui les travaux ont démarré à l'intérieur et que comme ni ko waxee woon rek eh, dañ leen woowoon pour ñu ñëw déglu leen ñu wax leen li nga xamante ni moom la conseil bi jël comme ndogal gannaaw recours yi nga xamante nag daan nañ ko déposer kon ne eh, peut-être ànd ak ñi nga xamante ni mooy ñi déposer ay recours wala dañuy topp li nga xamante dañuy débouté ñi nga xamante euh, mooy euh, la DGE euh, tout reste à ni ñu ko defee ni nemmeekoon nañ ko ndax nga xamante a tuppe fii nga xamante ni mooy ci conseil constitutionnel kon nee na ma bàyyi la nga wéy ak seen invité yi le temps peut-être deux moments ñu revenir pour xool ndax am na ay ci li nga xamante mooy ndaje bi diggante les sept sages du conseil constitutionnel ak mandataire yi nga xamante ni déposé woon nañu à recours jëm ci élection législative ñu demal. d'accord euh, Alassane dañ lay garder à repérage di xaar euh, yow tamit euh, yan nouvelle nga ñuy indil en tout cas on attend on est là avec toi ñu ngi xaar Omar Faye xam naa mu ngi mu ngi <laughs> mu ngi bëgg ñibbi mais on est là avec toi jusqu'à cinq heures du matin six heures on reste sur le plateau donc soo amee lu bees rek tu <laughs> <laughs> tu nous, tu nous, contact ah. nous contactes. On, on, est là. On peut même prendre le petit déjeuner. Euh, donc, euh, euh, dinañ ñëwaat ci yow donc dama lay bàyyi en ce moment nga def nga commenter un peu ce qui se passe peut-être.